الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ñu ngi siyaar mbokk yëpp di nuyu mbooleem sénégalais ak gan yi fi am sénégalais yi lekk ñun ci réew mi ak sénégalais yi nga xam ne ñu nga bitim réew te seen xel yëpp tourné ci réew mu Sénégal seen xel yépp ñàkk dal ndax li xew ci réew mi ñoom itam ñuy daje walla di ko jéem ci réew yi ñu nekk pour di wane seen bopp walla ñuy fokk ay xaw ay waxtaan pour ay pexe ba réew mi daal léeg-léeg ñu am ci njëriñ léeg-léeg mu metti ndax sore rekk metti na waxatuma ak nag nga daan am di yónnee sa réew jàngoro bi fi jaar depuis un an tax ba loolu mënatoo ko ba noppi nag ngay dégg sa ay doom seen ay jarbaat di faatu wala ñii di gaañu gaañu yu metti gaañu yoo xam ni naam ci waa al euh, ngembal der yi la wala ci ñi nga xam ni ñooy civil yi loolu yëpp benn jaaduwu ci may nuyu suñu kilifa yi fi nekk ñoo gën a kawe ñëpp te foofu laa waroon jiite muy kilifa diine yi déglu nañ leen déglu nañ leen bu baax a baax a baax a baax wax nañu gannaaw tey te incha allah tant ñoo ngi fi duñu wax noppi naam déglu bañ leen war a déglu defaguñ ko ndaw nag bu naree a réer wala mu nar a sànku bu ko mag di wax du ko déglu ndax day foog ni position ya mu yor tax na waratul déglu kenn day foog ni position ya mu yor ku ko ñaan njëkk sañ naa bañ waaye mag moom dafa di ëkk walla mu di xeer ndaw di nen bu dalee ci kawam mënul muusuwaane ba gaañ ëkk boobu ñun ñooy ndaw ñi nañ leen bàyyi xel jox leen orma te di leen déglu di leen bàyyi xel di leen consulter balaa dara di xew di leen consulter bu dara xewee di jël seen xalaat ak seen recommandation di ko jëfe bu ñu ko defee duñ juum de waaye bu fekkee dañu dañu réer ngir la ñu wër ngir corne yi ngir klaxon yi ngir moto yi ngir laamaar yi ngir ngir ngir alal yi ngir ngir ngir su boobaa on va passer à l'essentiel am nañu yaakaar lool ci ki nga xam ni moo fi toog wax nañu ko ko ay yoonu yoonu yoon naam na yàlla def ci moom déglu ba moom balaa dara di xew moon ci waxtaan ak ñoom toute confession confondue muy jàngu bi muy yeneen këru diine yi ndax ñoom ñoo ko ŋànk d'abord balaa muy egsi ci yeneen loxo bu ñu woote woon tey ñun ñu woote fii ñooy ñëw fee du ñu sax maas ñuy ñëw fii du ñu seen maas ci at du ñu seen maas ci xarañ du ñu seen maas ci mën a joxe seen bopp du ñu seen maas ci mën a jaayante kon amuñu ku leen sut ñu ngi leen di jéggalu ci li nga xam ni am na fi te ñoom ñu wax ci te ba tey jàpp naa ne nañ leen war a déggee nañ leen war a dégloowee dégge wuñu leen ko dégloowu leen ko waaye bu ñu toqi ndax gannaaw ñoom wax naa ko sànq bu ñu juddoo ñoo ñuy jox tur bu ñuy wuti soxna ñoom ñoo ñuy wutal wala ñi bu ñuy mayee soxna yi bu ñu amee njaboot ñoo koy tudd bu ñu demee ba suñu borom wàcce ci ñun la ko soob ñoom ñooy ñëw toppatoo ñu jébbal na suñu borom ñu amul kenn sutu leen ci ñun kon nag balaa ñuy xaar ba ñu tëral ñu ñu ñu jébbal suñu borom ñu soog nga xam ne ah kii kat ndekete nañ ko teel a xam teel ko jox ormo teel a xam ay jikkoom ak ay sañ-samam ay capacité ci ñun ñu teel leen ko jébbal seen sañ-sañ nag ci réew mi moom c'est intégral te loolu élection joxewu ko. yàlla moo leen ñu leen dénk te dañu leen di laaj yéen ba ñu leen dénkee réewum Sénégal jamono bu mu yëngoo lan ngeen ca def lan ca def mooy woote mooy wax mooy naqarul mooy am métit yaakaar ni bu ñu ko waxee ñun daañu dégg daañu déglu te ñu ko jëfe yàlla na yàlla def ñu am dégg-dégg bi ba mën leen ba mën jëfe seen ay recommandation am na loo xam ni bu ñu ko seetaanee rek mu jër musiba te ay ju yem ci loxo boroom ku nekk xam na ni ci suñu région bii difficulté rek moo fi am régime boo xam ne stable na fi lool ba wóor péng amu fi gànnaay yi ñu ngi circuler les armes de petit calibre ñu ngi fi circuler jënd ko ak jënd gerte caaf daanaka ñoo yem dëkk bu ñu jege lool boo demee ba Saraya nga jàdd sa càmmooñ bu fekkee Kédougou nga jógee mais da foog ni nekkatoo Sénégal sëñ bi man dem naa fa euh, euh, visite bind nañ ko rapport jox nañ ko borom réew bi wax nañ ko ca kaw ne ko fii c'est un lit de djihadiste parce que ñoom ñoo ñu ko wax ne ajjuma dañuy traverser frontière bi boot seen kalachnikov yore seen jakarta ñëw jiite wala ñu xutba tàllal loxo tàllal seen mbaxane lu ñu ci am jël delluwaat donc nekkul lu bees nekkul rek le 3 février ou le non non c'est ancien c'est connu booy demee Sédhiou jàdd sa ndeyjoor boo rombee dëkku Sadio boobu song jiré ji foofu yëpp pax ya fa nekk pour nit di fa jaar boo débrouillé ba egg mi dina soirée gàmmaat sa beneen ndeyjoor pour dem Marsassoum kàmb ya fa nekk mais niroowul ni sax ña fa nekk jàppe nañ leen comme waa réew mi wax naa leen affaire ferlo jooy naa ko moo tax may yuuxu tout le temps may reeteet ne leen Sénégal dañ ko def ay pàcc yoo xam ni ñii dañ leen jàppe sénégalais bu wóor ñii ñu jàppe leen sénégalais boo xam ne moom mën na xaar lu ñuy xaar nag amatu fi nañu góor góorlu ci nit ñi nañu góorgóorlu ci yërmande nit ñi nañu góorlu ci jigéen ñi nañu góorgóorlu ci xale yi nañu góorgóorlu ci xale yu góor yi wutal leen xëy du fi jeex du fi xaaj suuf si yaatu na kenn du ma ni soxlawuñu su pome soxlawuñu carotte soxlawuñu pomme de terre soxlawuñu patate soxlawuñu ay jur yu ñu sàmm mais àll baa ngi fi mi ngi ne yàmbalang c'est très facile de mettre ça en valeur des militaires à la retraite y en a la tonne et forme les jeunes en instruction civique, les former dans les métiers de l'agriculture et du commerce. Mais c'est facile. Ça, ce n'est pas dans les discours, c'est dans la réalité. bu fekkoon xale bu ci nekk occupé nañ la am foo toog di fa am looy jël di dimbali sa waajur ku la woo ci leneen lu dul xëy wàcc naan ataaya toog sa biir kër loo ko wuyu mais bu ñëwee dajji benn bitik nga gis benn borom kër bu day na man jël saaku ceeb bokk jël saaku meew bokk di waaxu di gestu xam ni kii amul lu ko neex mais sonn na yeneen dëkk yi xaaruñu lii am ñu def loolu xaaruñu ko lii am ñu def loolu dans des pays boo weesoo gànnaar yéeg foofu sëmul bu manqué rek c'est une rébellion énorme sëmul rek mburu rek bu manqué coow li ne tulle ak màlle kon ñu war a xam ne ñun nous sommes un peuple paisible ñu mën a gën a góor góorlu ci suñu bopp noppee wane image boo xamante ni ca bitim réew suñu réew d'abord ku ko seetaan di nga yedd sa bopp ca bitim réew di nga am naqar ci sa diggante ak sa bopp mais ci sa diggante ak say nawle ya nekk foofu ña ngay liggéey ña ngay dajale ña ngay yónnee ña ngay tabax waaye loolu yëpp bu fekkee ku mer taal ku mer daaneel ku bët du sotti kon ñu mën a seetluwaat suñu bopp ni ko xale yi tàmbalee d'ailleurs déjà image yu ñu mujj gis fan yi di ñëw fekk takk der yi fa ñu toog jàmbaarloo nañoo ñoom bu saf-saf waaye ba mu taxawee seen am na fu seen xel dem ñu ñëw wut ay ndox xale yi ndaw ci ay jigéen ci ci ñoom sax d'ailleurs di leen may ndox di xool seen armure yi seen yére yi nuñ ko defaree et tout ça xam ni la weesu ñoom déjà réccu nañ ko ñoo ñu raw te mën nañ leen jur xëy na suñu ay sët la ñu maasal mais noonu ñu raw ci xel noonu ñu raw ci xalaat ñu ngi xool mag ñi naan waaw ñii ñoom ñii ñoo ngi yor waaw ñoo leen yor mais da ngeen ñuy dimbalee ñu gën leen yor que ñu ñëpp boole suñu bopp dénk ko suñu bopp mu am mën yërmande ci ñun ñu jàppee na ay njirim mu ñëw di raay suñu bopp bu amee juróomi gërëm jox ñu bu ko amul mu raay suñu bopp bu ko neexee sax tàpp tàppal ñu mais noolu moo jaadu loolu moo xam ne lu mënta ñàkkal waaye génne alkaati yoo xam ba ñu déclaré pandémie ba léegi ñoo ngi ci biti xamuñu lu xew seen kër ñoo ngi ci mbedd mi du ñu añ du ñu reer du ñu def dara parfois ñu nekk ci lëndëm gi di régler circulation torche sax duñ ko sont fatigués sont fatigués de courir dañu toq toqi ci dopp gars yi di daw dans des zone yoo xam ñoom maîtriser wuñu ko dans des quartiers qui ne pas dans des rues de quartiers populaires yoo xam ni seen i oto xaju fa te dàq seen i ñooñ di leen dóor balu fetal du loolu lañ leen di jëlee les réquisitions des commandants de zone. Mais ce pas ça. La, la vocation de l'armée, ce n'est pas de traquer du civil. la xaar ci soldat nekkul di topp civil de leen dóor ay balu fetal mooy défendre civil yi mooy ñoom ñu ñàkk seen ay nelaw pour que civil yi mën a nelaw ba yàndoor mooy nekk ci frontière yi fexe ba Sénégal aar ko kaaraange goo xam dafa mucc ayib ñoom bu ñu xëy di dem kenn ci ñoom mënul waat ni dana dellu si këram. pour pourtant ñun ñoo tax ñuy dem boo leen gisee biir région yi nekk dans le sud ñu gas ay pax def ay branche ci kaw dëkk ci suuf di toggal seen bopp di taaba taaba def fa un an ou un an et plus ñu mën leen jàmmal tuuti nekkuñu ñu nekk guñu état de siège ba ñu war leen génne ci mbedd yi ak seen ay chars de combat maanaam signaux yi nga xam ne ñu ngi koy joxee dafa war nekk des signaux de paix et de sérénité waaye bu fekkee foo dem rek gis euh, takk der taxaw euh, dégage si non c'est pas ça un peu de correction pour nos populations sans lesquelles nous n'existerions pas kon yal na yàlla def ci ñun woy yal na yàlla sàmm suñu ndaw réew yal na yàlla delloo si leen ñu mën a toog ci kër yi bàyyi seeni mag ñi nga xam ñoom la ñu jiital ci kanam ñu waxtaane ko ak ñeneen ñu ko seqal ba jàmm ju yàmbalang dellu si biir Sénégal investisseurs yi fi ñëwoon bare nañu te seen alal yàqu bu ñu tiit na continuer di gëm na Sénégalu démb mooy Sénégalu tey naam am na ay loo xam ni xaw na ci ñagas les partenaires du Sénégal en coopération bilatérale ou coopération multilatérale loo xam ne da nga ko seq ak benn réew wala da nga ko seq réew yu bare nañu jàpp ni Sénégal boo woon ba léegi moo fi ne seytaane nag day na dugg ci kër yëngal ko waaye du fi yàgg buñ ko daxee onze billahi mina seytaani rajim sax ci astafirullah sax ci je peux vous assurer que du fi toog du fi yendu parce que du fi xaj yàlla na yàlla def ndaw ñi déggante ak mag ñi ndax loolu mooy richesse su réew mi ndaw topp mag mag yërëm ndaw suñu ko defee rek mu am jàmm xale yooyu tëdd te ñu jam leen balu fetal je puis vous assurer maa ngi koy wax kenn sànq man ki nga xam ne moo gaañu Bignona ba ma ko gisee mu tëdd deret bi di couler j'ai pensé à mon propre fils mort aux États-Unis sans personne pour le secourir bàyyi ko gisant dans une mare de sang en bordure de route quelle misère j'ai eu mal mais dama jàppee kooku na sama doom jàppee njaboot yu Sénégal yëpp ñi nga xam ne mën naa leen jur comme sama doom ñi nga xam ne ñoo ma mag comme samay way jur ñi nga xam ne ñoo maase ah ma def leen nijaay parce que nangu naa loolu waaye nag am na foo xamante ni il faut que yërmande ñu jiital ko te yërmande boobu nag ca mag ñi lañ ko yaakaare ndaw ñi ñoom ñu toppante te jëfe ndigal